dóoral bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñu yéenay bàyyi xel diine ji TV ñoo ngi leen di nuyu di bu baax baax di am mbégte kontante di ko yéen seen émission laaj ak tontu ni ñu baaxoo di ko def ay bés yu ne ci waxtu bi le sëriñ bi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di la ziare di leen ndokkeel di la jàmm di sàkku ci it ñaan bu baax a baax di la jotaliwaat nuyoo ñi nga xam ne ñooy topp diine ji TV ñu mën a nekk ci biir réew mi xam naa ni léegi tey nag laata ñu ñëw ci wàllum laaj yi njëkkanteeg waxtu wi rek euh, soos tuuti ci li nga xamante ni moo di wàllum tabaski nga xam ne ci la ñuy daanaka yegsi na am na luñ ci jotoon a waxtaanee waaye luñ ci waxtaanee rek du doy ñu yeddaat ñi nga xamante ni rek euh, ñoom ñooy jullit yi te war a dem ci tabaski ak nañ ca war a demee ak nu ko ñenn ñi yéenee seen bopp mu dis lool ci ñoom su ko defee incha allah rabbi ngay nit ñi ci ay jàngat yu gàtt gàtt rek sëriñ bi maa ngi lay nuyu baax baax di la ziyaara bàyyi la nga nuyu wanteeg ñi nga xam ne ñooy seetaan Lida ci TV. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي رحمة وكاشف الغمة وشفيع الأمة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الأئمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة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 di jël nuyo boobu di ko gunge ndokkeel leen ci weer wu mag wi takalaahu teru nga mm-hmm. xam ne démb lañ ko doon séentu waaye jul feeñ mm-hmm. commission bi dëppoo ne suba ci kartanal yàlla di altine mooy nekk première fan ci façon tabaski bi ci weeru tabaski bi mm-hmm. weer woowu dafa nekk weer wu màgg màgg màgg màgg ndax dafa bokk ci weeri aj yi bi yàlla di wax ne alxajju assurul maalumaat moo doon wori diggi tabaski kon tabaski ci weeri aj yi la bokk donte boo demee ci diggante Maalik ak Saafi yooyu ak Abu Hanifa ñii ne fukki fan ci tabaski ñii ne ñaar fukki fan ci tabaski ñii ne tabaski bi lépp ndax jamoo jamoo xilla la te li gën a néew ci jamoo xilla mooy ñett jëm kaw hmm. ñett rek foog mat ko mooy la ca gën a néew kon mo tax ñoom ñi ñi japp ne wër wi lepp la wër wi fukki fan yu ñëk yi moo gëna tedd ci wër wi yëpp nak li wër wi tedd tedd fukki fan yu ñëk yi moo ci gëna tedd fukki fan yoyu for gim for ak tedd gim tedd mo tax yàlla ma ngi gëñ bam ne wal fajri mu ne wala yaale asri wala yaale asri jooja moy fukki fan yu ñëk ci wëru tabaski wi wara tambalé niki suba ci altiné ji jëm talata alarba, alxames ba alarba bi gersi wat ñu hmm. ne alarba jooju nag nekk li fukki li fan bi ñu war ci tabaski hmm. fukki fan yoyu for gi mu fora tax yonent yalla musa bi mu gisé ak suñu borom mu jox ko téré bu ñu tuddé tawret sama borom jox ko ndigal ne ko na fan wéri fan mu fanweri wéri fan wéri li fan ba gémmañam soppeku mu soccu sama borom ne ko sa gémmañ gu soppeeku gi salli gi muy salli ci man mo raw xet ak misk comme nak yaangi ni diko soppi ci sa soccu bi dang ko remplacer te ben fan bobu yeneen fukki fan mu tax mujj bu vous ba mujj soppeeku ñeen fukki fan tax gaa xalwa yu bari ni koy def xalwa ñeen fukki fan muy xalwa yonent yalla musa ja mm-hmm. fukki fan yem dolli won ci fanweri fanam yoya moo doon fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski war a teew ni ki suba di première fanu altine jëm ba ca àllarba ca kooku ba tey mooy wala yaali ashri ji yàlla gëñ fan yooyu yonent bi moo waxal boppam ne jëf yëpp jëf ju baax moo ci gënal yàlla jëf yu baax yi ñuy jëfal yàlla yëpp dàq jëf ja ci fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski moo ci gënal yàlla kon jëfal yàlla lu baax mosta dañ di baax ci xat mi yépp ci fukki weer ak ñaar yépp waaye nag dàkk lu baax loola ci fukki fan yu njëkk yi ci weeru tabaski bi foofa nag fa la promotion ba gën a ko fa la fa la fa la fa la promotion ba timit gën a foore moo tax da nga gis jaami yàlla yu bari ci weer woowu bu jotaan dañ ciy sàkku di ci bënn teen bënn ci forage pour nit ñi naan ci ñii yëkkati ci ay xéewal di ko jox néew bi doole yi maanaam daal jëf ju baax joju ñi defal yalla yépp nga dakk ko ci fukki fan yu jëk yi mo hëpp doole nga def jëf ju baax joja ci yeneen fan yu du yoya yonent bi neena na dara tollu tak lu mel nana kon fukki fan yooyu ku ko man nga xor ci defal ko yalla yonent bi dafa ko daan xor te dehal nañu ñe boko ko fan bo ci xor dañ la koy bindal ku xor at kon yow kay bo xooree fukki fan yu muy juroom ñeent yu njëkk yi rek yalla may na la nga am payoorab ku xor juroom ñeenti at da xam nga lolu timit yobul kon lolu weeru promotion la weer la wo xam niñ ci bëggee wor bëgg nañ ci ku yalla dogal sa loxo jot sa gannaaw nga dimbalé ci néew ju doole yi na mbokk yi nga xamé tay tabaski mi bu leen sariya wàccee ada aada wul len nga lamb sa pos dimbalé len ta yalla tek tax nga suturaat len timit ci dimbal la waye tay dimbalu politiciens yu bari toroxal nit ñi rek mo ci gëna bari taxaw génne ay xar yu jeex génnee ay saako soble nit ñi néew gi doole yi di ran ñi caméra leen réseaux sociaux yi génnee leen télévision yi génnee leen nit ñi mën a xàmmee ne kii sama baay la kii sama doom la kii sama sama tante la kii sama nijaay la image yooyu des fi bu péncam yàlla nga nekk fanaan naan ñii dañoo néew doole moo tax ma bëgg leen a dimbale te buñ seetee li leen tax a néew doole yaa leen néewal doole ndax li waroon na jëm ci ñoom yëpp moom nga jël sàcc ko lekk ko mhm. su ko defee ñoom tamit ñu néew doole nag nga ne nag bale ma leen a teral mhm. naa leen toroxal mhm. te loolu baaxul ni saxaaba yi daan nañ dënd ak nit mu néew doole ñi di ko jox dund ba xëy génn àdduna te mosuñu xam ne moo koy jox dañuy bàyyi ba guddi ba nit ñi tëdd rek ñu jël saako ceeb wala saako dugub wala am xar fexe ba jël ko ci miir bi bu waa ji xëyee xam ne rek boole kook leetar ne koy loolu kan mën nga koo jël jëfandikoo benn jaamab yàlla boo xam ne bëggul sax nga xam ko mais yàlla moom xam na ko wala ko jox mm-hmm. boo mom ci mi ngi nek ci kagn lay xamne ki kii moo ko doon jox bu koo ko deeyee rek mm-hmm. genn aduna gisatul ndimbal la rek mune ne ndeke man sama ndor bi nekkon fi xewali yeb momako dan jox motax yalla dafa bëgg ci njàngaleem yonent bi lim ñu jàngal mm-hmm. du sa jor bi joxe sax sa moy bi bu ko bu ko xam waye nak bala nga meuna a nit ñi rek moy fi nit ñi gëna feñé fi nit ñi gëna bëré caméra yi dar la nga teg maanaam xeeti ndimbal yi teg ñu ngi koy dimbalee am na ci xeeti ndimbal yoo xam ne toroxal ni rekk la te loolu lépp dara jaru ko te bëri na ku lay dimbalee loo xam ne da moo la toroxal mhm. ndax lim lay dimbalee lépp sa àq la woon yaa ko moomoon mais moo ko sàcc jëmale ko ci boppam mhm. yooyu ndimbal yàlla soxlawu ko mhm. nañ ci bàyyi xel bu baax bu baax a baax a baax a baax a baax kon euh, ndimbal ndimbal ñett la dañu bëgg ndimbal lu nëbbu ak ndimbal lu feeñ ndimbal lu nëbboo ndimbal lu feeñ mooy boo xam ne boo koy def tiitaruwuloo ci wanewuloo ci wanewoo ci sa dayoo toroxuloo ci ki ngay dimbale mais dama ko bëgg a def ngir bëgg ñeneen ñu roy ma ci boobu mooy bu feeñ bu nëbbu bi mooy yow joxe nga ki nga ki jël xam na ki joxe xam na ñoom ñaar rek a xam na mm-hmm. boobu mooy bu nëbbu mm-hmm. euh, bi nëbboo nëbbu nag ndeysaanam ki jël rek moo xam wala sax ki joxe rek a xamee ki jël sax xam mm-hmm. boobu nag moo ëpp doole Euh, loolu moo ëpp doole ki ndimbali kon buñ ne bu feeñ bi ki joxe xam na ki jël xam na keneen ku dul ñoom ñaar xam nañ ndax soo jëloon tey ñaar fukki junne jox ko benn sa doom ne ko demal joxal ma sa baay diw ne ko ci li ma doon wax mm. yee boobaa yow xam nga moom xam na mais sa doom xam na mm. euh, su fekkee na tey Euh, da ngay ñëw rek ànd ak nit ki nii ngeen bokk julli fajar gi rek nga bokkal ko ko yëkkati ko jox ko ko yéen ñaar rek a xam ki joxe xam na ki jël xam na euh, wala yaw nga lëndëmoo lëndëm gi bëccëg bi koo fekk ne ko dama laa soxla woon euh, dama laa soxla ñëpp génn nga yëkkati loola jox ko yéen ñaar rek a xam mm-hmm. mais ndimbal bi nga xam ne nag ndeysaan ki joxe rek a xam ki jël sax xamut ndax mm-hmm. moom ndimbal xegg si na ci moom waaye xamut fu mu baxee ko mm-hmm. loolu nag ndimbal loolu la yàlla gën a soxla mm-hmm. in tubdu sadaqaati fa nimaa hiya wa in tuxfuuhaa wa tu'tuuha l-fuqaraa fa huwa xayrun lakum loolu jooju nag yàlla wax nañ ci bàyyi xel waaye tey ñu ci bëri tey ci politiciens yu bëri ak ni nga xam ne tiitarukat lañ ci événement yi la ñuy jaaree di ci wane seen doole di ci wane seen dayo di ci wane nangam ak nangam te jublu ci loolu di ci toroxal doomu aadama yi di ci toroxal gor yi te loolu dëgg-dëgg baaxul nañ ci bàyyi xel bu baax a baax kon danga ne ku ko yàlla man loo nga xoor waaye tamit noonu la sàkk ndimbal jëmee ko ci néew gi doole yi jox leen ko noonu la amee doole ci fukki fan yu njëkk yi ci weeru tabaski bi moom loolu tamit am na solo mm-hmm. waaye tamit fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski bi euh, loo ci mën nga julli guddi yee ngay naafila na nga wooree bëccëg ya loo man ci jàng alquran nga def ko loo man ci istighfar nga yokk ko loo man ci salaatu ala nabi nga def ko loo man ci laa ilaaha illallah nga def ko jëfal yàlla daal lu baax mosta dañ du baax mm. waaye ci fukki fan yu njëkk yi ci weeru tabaski ñu defal ko ca yàlla moo ko gën a lépp du fuñ ko fuñ ko mën a defee fu dul foofa kon nag loolu rek laa ci am loo xam ne maa ngi ko ciy encouragé ci nit ñi mm-hmm. lu jëmoon ci wàllu tabaski bi wax naa ci lu yaatu ci waxtaan yi passé ñu topp waxtaanu fajar yi tamit mm-hmm. wax naa leen ko ci lu yaatu ne nañ fexe ba def tabaski mm-hmm. waaye fexe ba bañ a def lu ñu tuddee tëbis bi comme nag at mi yëpp 365 jours la boo góorgóorloo ba tëb benn bis bi 364 jours yëpp dañuy mujj tëdd tabaski bi passé nga fay sa téléphone bi kenn mënu laa jot tabaski hmm. bi passé groupe ya nga bokone yeb ken deggatul da ndeke yow ken bo ken xamul kañ nga ci deug deug ci ligne bi bo laaje ne ko seetal ma ko ci ligne bi ne ki avant ñi tabaski dañ ko deg dégg ba léegi tabaski bi passé nga nga nga rangone bagage jamburu jàmbur fa ko daw mu mu yobbo la nga ñak sa place ba tabaski bi passé nga deske deuk ba rek mëno fexé ba ñipsi waye wala ñipsi nga sax waye mbedd moo bu ne fii kat science interdit la te duñ gis benn forus bu tàkk loolu lépp tamit jéem jéem doon jéem a bis bi rek mhm. ba mujj yeneen bis ya ca tegu yëpp mujj la të tabaski bi passé tamit yaa ngi amee luyaas mhm. yaa ngi mujj daw ak borom kër gi ba mel ni maanaam daal yow balaa ngaa ñëw fekk nit ñi tëdd mhm. bu fajar jotee balaa nit ñee yow fekk nga génn yooyu yëpp coono jëru ko ca tabaski bi passé nga defoon ay pere yoo xam ne dañuy mujj di la ko dagg nga mujj dagg kër ga wa sa njabot ga dagal nga mujjé am jafe-jafe wala nga def pere pare. war a nga pare waaye wu deug deug bo boo mm-hmm. duggoo ci ay pare yi rek man na la andil jafe-jafe yo xam do xam fa muy dem kon dal sharia lim ñu sante moy tabaski mm-hmm. waye santul ñu tabis bi te imam Malik mo ci gëna oyofal ci walu masalam tabaski mom dafa ne ki war mooy ko xam ne mm-hmm. bu ko tege ci place fi ba fukki wer ak ñaar du ci am soxla mo xam soxlaay bopam ci wàllu lekkam ci wàllu naanam ci wàllu soloom ci wàllu dëkkam mm-hmm. wàll ci wàllu ay borom waaye ak soxlaay njabootam ci wàllu fay seeni jàng seen wàllu fourniture seen wàllu sante mm-hmm. loolu moom daal li ko dooree fii ba fukki weer ak ñaar mm-hmm. boo fi amee som boo xam ne warut na leen amul dara lum lay xaaree Malick ne ne kooko rek la tabaski bi war kooku nag yow boo ko amul nag kon kon ci ngay yëgee ne ndeke ñu tabaski bi war bariwul de euh, waaye nag bu la yàlla wàccee nga bëgg a yéeg mën ngaa daanu boo daanee loos bu damm xaj na ca comme ni ma ko waxee ci waxtaanu fajar yi kon nag loolu nañ ko ciy bàyyi xel na sëñ Abdoulaye Mbacke alhakim bu mu waxee gaa yi ñëwoon ci moom def mbooloo ne ko ah Mbacke ñu ne tabaski lañ bëggoon nga dimbali ñu ci mm-hmm. mu ne waaw yaakaaru leen ko na mu ne ñoo ko Mbàkke yaakaaruñ ko fenn amul leen ko mu ne ko wallaahi Mbàkke amuñ ko mu ne yéen wàcc na leen yàlla nag bu la wàccee nga bëgg yéeg man nga faa jaaree daanu loolu nag darsul bu mag a mag la ak bu rëy rëy rëy la tabaski bi xaw naa saa dee tabaski bi maanaam sama ngénte li xaw naa saa dee sama nganale màkk gi xaw naa saa dee sama gan gi xaw naa caa dee wallaahi nga bàyyi sunna sunna dafa ñëw ngir noppal nit ñi teggi nit ñi coono waaye ñëwut ngir teg leen moo tax loo def ci yooyee boo ca defee boo ci amee coono rek dootul sunna ndax yuridullaahu bikumul yusra mais wala yuridu bikumul usra loolu tamit nañ ci bàyyi xel si Ahmed Tidiane hmm. macha allah euh, jërëjëf Oustaz Hady jërëjëf ñi nga xamante ni ñooy seetaan diine ji TV surtout alaaji sa Espagne sëriñ bi mu ngi lay ñaanal ñaan yu am solo ndax wax dëgg yàlla nee na nag nga bàyyi di wax euh, wax naa ko ci waxtaani fajar yi ndax ñoom léegi déglutuñu Walf ndax diine ji TV wax dëgg yàlla diine ji TV la ñuy déglu moo tax looy wax ci waxtaanu fajar bi dañ koy soxla it ci diine ji TV macha allah jërëjëf ci jàngat bu am solo boobu nga xam ne wax koo ko yaakaar naa ku ci bàyyi xel itam wax dëgg yàlla tabaski mën naa yomb ci yow ni ñu koy jëlee ñun sénégalais yi dafa metti lool yaa ngi koy wax léegi sa laata ci plateau bi daanaka ñi nga xamante ni amuñu jabar euh, te jël xari waranu tabaski waaye duñ ko def dañ koy jël jëndal seen i soxna wala jëndal seen yaay te war a tabaski dëgg-dëgg daal lu lu mat a bàyyi xel la xam ne daal tabaski daal wax dëgg yàlla Euh, sunna la oustaz loolu am na solo ñu jéem a dugg nag ci li nga xam ne moom moo di wàllum laaj yi euh, xam naa laaj bi njëkk rek dañ koy jëmale ci wàllu tabaski kii nee na ñoom ci bitim réew fu ñu nekk euh, dañuy jënd xar bàyyi ko fañ koy jëndee nag waaye nag duñu ko jël indi ko seen kër ndax espace la amul bu suñ demee bu suuru tabaski nag buñ demee julli ji ñoom laata ñuy julli bay ñëw fekk ne fa ñu ko bàyyi ñooy moom defar nañu xar yi ba pare mu gis ne fii ci Sénégal dañuy julli ba noppi doo a reeni xari muy laajte est ce que ren di julli amagul est ce que dinañ am tabaski. si euh, Ahmed Tidiane kep ko xamne ne ga sam tabaski njëkk ngay julli li muy tek rek am nga yap way amulo tabaski. waxtu wiñ wara julli ci yor-yor bi fekk jant bi yëkkatiku ba dox lu mat gop ni ko daan mag ñuy jàngale. su boobaa foofa la waxtu julli tabaski tàmbali. Fumiya am nak sax borom xam-xam bi wuutee nañ ci am na ñoo xam dem nañu ne ba sawal am na ñoo xam nañ dem nañ ba avant jant bi di xonq ci so foofa yëpp fuñ ko fi jullee ci bis bi baxna ndax fofu la commencé ba fofu la yem léegi na su fekkee yeen da ngeen am imam bo mo leni jité ci bisab tabaski bi sharia day wax ne bala ngeen sañ di seen tabaski ma yeen da ngeen julli ba pare bu imaam sëlmalee rendi bosam bu paree yéen nag ngeen door a mën a rendi waaye bu ngeen ko joxee koo xam ne kon moom da ngeen a dem julli ji ku mu dem rendi tabaski moom xam ngeen yàpp de waaye xamu leen tabaski lay hmm. laaj nag rek ngeen waxtaan ak moom ne ko kon suñ tabaski yi jënd nañ ko yéen a ko yore dafa am luñu suñu chariatul islamiya gatchi may leen ñu ba heure sangam yéen xam fofu ci en waxtu nga xamne bu jotté dana fekk heure bobu ngeen di julli ba paré mm. ñene ko dimbale ñu rek ba heure bobu ngeen door ñoo rendi suñu tabaski bi ndax loolu lañu suñu chariatul islamiya sant yéen na su fekké julli wu leen ndax place bobu amoo fa mel na mbug mbekk julli mo amana na ànd waktu. julli sétal dekk wala réew mi la gëna jégé da bokk waxtu ñoña buñ rek su boba ala kulli hal man ngeen a julli mm. kon lo rek ci am solo bu bayyi ci xel bu baax ci heure boobu rek moo ci am solo kon waxtu wi nga xam ne daal ñi nga bokk ak euh, waxtu buñ jullee rek yéen man ngeen dëgg ci seen julli ko yéen tamit ngeen ngeen julli waaye nag jullee goo te foo jullee am ñu lay jiite nga rendi sa kalam tabaski ba pare te fekk jullee goo kooku moom mhm. sariyaat islaam yi du ko nangu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax mhm. macha allah jërëjëf Oustaz Sadi jërëjëf ñu ngi jégalu bu baax ci dagg-dagg boobu léegi rek ñu ngi ciy jégalu bu wér jërëjëf Oustaz kii itam dafay laajte Oustaz nee na bu fekkee da nga jënd xar euh, dem ba ci suuru tabaski ngeen julli ba noppi nga yeewee sa daaj ba xommat jëm si fi nga xam ne fi lañ ko war a rendee fi nga indi ko ba fi ñu ko war a rendee ngeen di tëral ci diggante tëral bi noonu laata nga xar mi di daanu dam am est-ce que xar mu dina mën a tabaski. waaw tabaski borom xam yi dañoo wuute fan lañu war a tàbbalee yéene ji ñi ëpp ci borom xam-xam yi imam Malik ci la bokk te ci ngirëm lañu tënku mom ak imam Saafi yu dañoo wax ne fi ngay jëndé xaram tabaski mi foofa ngay yéene da nga démé di jënd rek foofa ngay yéene su fekkee fi ngay jëndé xaram tabaski mi foofa ngay yéene jamono ji ngay jënd xarmi xarmi matna amul ben ayib buy tax mu manki ci ñenti ayib yonent bi jàngale ko te ñenti ayib yooyu damu di soox soox bu biir ca la bokk di euh, euh, ñeenti ayib yooya béjjën buy nàcc ca la bokk ñeenti ayib yooya mu nekk xar moo xam ne dafa dafa dafa dafa am feebar ba ku ko gis xam ko ci yaramam ca la bokk ak yu mel ni noona euh, boroom xam-xam yi jëlaat ko ni farañ at wax jooju ba génnee ci parce que lu mat fukki ayib ak ñeent yoo xam ne bu nekkee ci xar mi kenn du ko tëbaskee yooyu bokk ca tëx nopp yu tëx wala demee ci bët boo xam ne dafa patt euh, wala sax bët bi ci boppam dafa muuru gisatu wala maanaam gàtt bi mel ni lu fiiw euh, mel ni lu seere noonu mhm. ak yeneen ak yeneen demee ni gémmañ gu xeeñ mhm. ba ku ko boo ko jegee xar mi xam ko mhm. yooyu lañ koy jël di ko lim yooyu yëpp su fekkee jamono ji ngay jënd xaram tabaski mi nekkut ci woon gannaaw si gi euh, avant ñu nga koy rendi wala bëgg rewé bakoy bëgg a di lool door ci gaar malik néna na mat na tabaski ndax ndax téena na xasna tabbi ba paré mu mu mu tekkalo ko ci benn saxaabiyu dafa ut ben hadiyu di ko rendi pour def ko hadaya euh ci makka yalla dogal nak bi mu koy jënd hadiyu mi amul ben jafe-jafe bam démé bakoy bëgg ñi koy wara rendi pour def ko hadiyu rek am lu ko gaar mu wax ko yonent bi yonent bi ne ko su fekkoon ne jamono jënga koy jënd dara gaarut ci waaye gannaaw bi nga ko jëndee ba pare ci la ko loola gaar dana mag da ko mën a da nga ko a jëfandikoo hadis boobu ci la muslim andi ko ak buxaari yu abu daawud ak tirmisi yu ci la boroom xam-xam yu bëri sukkandikoo ne tàbbal ak yéene tabaski ma nga nekk ca fa ngay jëndee xar ma kon ba nga koy jënd daal mat na amul benn ayib bu ci manqué ci ayib yi teree xaram tabaski mat gannaaw sigi bu amee lu ko gaar moo xam dafa damm moo xam béjjën ba moo nàcci moo xam bëñ yëpp moo bokk fuq moo xam bët baa muuru moo xam ñaari bët ya wala benn baa tuuru su boobaa dara nekkut ci mat na tabaski ba pare beneen xaaj bi nag ñoom ñoo ne tabaski mi ko ñaa ngi koy xéene ci fañ koy rendee ñu jàpp nag fañ koy rendee la nag kon foofa moom bu fa banqué rek matatut waaye nag wax jee nag ci lay imaam Malik sukkandiku te moo gën a yaatu te moom laa moom laa la indil xadis boobu nga xam ne tabaarakallaahu euh, saxaabi yu ba ñu ne ibnu Omar kon nag loolu kon ñu jar ci bàyyi xel bu baax a baax si Ahmed. macha allah macha allah jërëjëf Oustaz leer na ku ci topp dem Oustaz li muy laajte nee na est-ce que sa jëkkër bu génnee àdduna wala boog sa jabar su génnee àdduna kenn ci ñoom bu ci génnee àdduna est-ce que jëkkër mun na sang jabar ànd ak yeneen i xaritu góoram wala jabar mun na sang jëkkëram ànd ak yeneen xaritu jigéenam. waaw Mm, sangam néew sax ñaari way dencante lañ cay jiital ñaari bu ngeen way nekkoon way dencante nekk ay jullit kenn ka génn àdduna moromam lañ bëgg mu sang ko loolu moom lañ jiital ci mbooleem xeeti sangi néew yi jëkkër sang jabar moom lañ ci jiital ak jabar sang jëkkër moo tax boo jëlee ku mel ni naa ali moo sangoon saydatuna fatima boo jëlee ko mel ni sayduna othman moo sangoon saydatuna ruqiyatu demeet su don lim ci sahaba yi nga xamne ne seen soxna ño len sang fi la fi la ñuy fanaan su ma jël timit ci sahabiyat yi nga xamne ño sang ya timit kenn mënut lim way ga kon loolu lañ bëgg nga de sang jabar wala jabar sang jëkkër ya. Euh, moom nag jigéen ji euh, moom moom moom moom moom jigéen ji bu fekkee dafay sang dafay sang kii bi dafay sant jëkkër ji mhm. mu ànd ak yeneen i jigéen mooy gën waaye bëgguñ mu mu muy muy dem di ànd ak comme jigéen la mhm. euh, te am na fa yeneen i jigéen mhm. Eh, su boba ñu mo and ak jigen moy gëna ëpp sutura mm. goor ñew di ca bok ko mm. xamne ne tak ak paju kii am noonu mm. ndax dañuy de bëgg ci ci ci ci ci ci ci sang bu demee hut comme ni mala ko waxee ni ñuko man nek fa bu jigen jigen ña sang jigen ña bu goor goor ña sang di goor ña mm-hmm. balal safan ba mëna am ñaare rek day fekk daruriyatu am mm-hmm. ta ad daruraat tubihul mahfurat si Ahmed Tidiane mm-hmm. macha allah jërëjëf euh, oustaz euh, leer na ku ci topp itam saas li muy laajte nee na dafa bëgg nga ñëwal ko ci wàllum uh, natt natt nan la ko lislaam di gisee maanaam ci ki nga xam ne day joxe nattam waaye ki nga xamante ni day encaissé natt bi mooy dajale natt bi est-ce que lislaam amul dara lu mu ciy bañ ci natt ba pare jël xaalis ba commerce sa ga ca aju natt daal bu soppeekoo nattu chariatul islaam yi dana ko nangu waaye natt nag bu soppeekoo nattu moom xaraam na mm-hmm. natt bu soppeeku nattu mooy ñu nattal la nga bañ a nattal natt bu soppeeku natt mooy ñi nattal la teg ko ci loxol kenn ca commerce ba xaalis ba suuf natt bu soppeeku nattu mooy kiñ jox natt ba mu fur far sax luubal ko dem takk ci am ñaareel wala mu dem tabax ca bâtiment am ba mbir ya mujj soppeeku dem ci yoon mm-hmm. wala bu mu demut ci yoon tamit mbokk ga ci boppam a ngay yàqu mm-hmm. waaye daal su fekkee na ku nattal ku nekk lañ la nattal da nga ko nattal sa morom mm-hmm. li ko dooree ci ki njëkk a teggil ba ci ki mujj a teggil du dara loolu dafay dugg ci bunt buntab taawun mooy dimbalante te alquran dafa wax ne wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan ndax su fekkee ne man bëgg naa faj sama soxla te li ma am mat matul sama soxla mm-hmm. yéen ñëpp ngeen bokk dajaleel ma takk seen biir ci seeni soxla mm-hmm. jox ma ko ma faj sama soxla mm-hmm. su ma paree yéen ñëpp ñun ñëpp ngi takkaat suñu biir jox la ko nga faj sa soxla buñ paree ñëpp takkaat seen biir jox ko keneen mu faj ay soxlaam loolu dafa dugg ci bunta taawun muy dimbalante te nag allahu fi awni al abdi ma kaana al abdu fi awni axihi la yonent bi a woon si Ahmed Tidiane macha kon daal mu dara luy lislaam di bañ ci wàllum natt sag bi ci topp itam li muy laajte ci weer koor yi dafa woor fukki fan ñu mu waree fukki fan nag yàlla dogal yaramam xaw a jagadi mu dem hôpital seetlu ji ko bi mu demee médecin bi ne ko da ngaa yor jabet ñaar fukki fan yi des doo ko mën a woor ci loolu nag mu bàyyi wooratut ginnaaw si gi nag bu fekkee delluwaat na hôpital médecin bi xool ko na ko mën ngaa woor li mu wóorutoon nag mi ngi doon continuer di laxal miskin muy laajte ba xam fan yooyu nga xam ne wóorutoon ko ginnaaw bu buñ commencé waatee woor est-ce que fan yooyu mu doon laxal miskin day fay fan yooyu nga xam ne daw doon laxal miskin te wóorutoon si Ahmed Tidiane ñu bëri dañu am njuumte ci diggante boobu xam nga mënoo xoor ak mënatoo xoorati duñ benn mm-hmm. febar garse bu la médecin bi xolé ni ah man na wër kay nañ la jëfal ay garab faj la su boobaa bul hor bu passé bu yalla dogalé nga wër ah da ngay fay fan yoy nga amoon ca fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar waaye bu la médecin bi xolé ne yow de yaangi jangoro jo xamné du wër mukk te jangoro ji kenn mënu ko bolé ko kon sharia day wax ne yow hor wacc gumna la ñu des ki sa dund bi daal bët bu set mhm. natal benn mudd koor nga jox ko fuqaraaw yi ak masakin yi mu jeex waaye ñu nag da ngay koo xam ne ku feebar lu mu tuut nga ne man damay natt mudd su boo ko defee boo wéree da nga dem fay fan yooya nga xamoon ca weeru koor wa moo mhm. tax moom kon bi mu feebaree sonn na xoor fukki fan ñu mhm. ne ko mënoo xoor mu dem commencé natt koor gannaaw koor gi jeex yàlla dimbale ko mu wér dem seeti médecin bi mu ne ko mën ngaa xoor ñaar fukki fanam yooya dafa koo war a fay ndax loolu moo doon fay gi moom lañ ko yàlla gàccoon waaye su fekkoon na dafa continuer feebar bi ñu ne ko yow de sa feebar bii du wér te kenn mënu koo boolee koor foofa lay natt mudd koor door di taxawee waaye doo ne ku feebar rek naa natt muram koor dootuma warati déedéet di am na jabeeru ñu mën a boolee koor am na ulcère yu ñu mën a boolee koor am na yeneen xeeti jàngoro yu bari ñoo na boole koor euh, moo tax foofu faqih bi dafay déglu médecin bi médecin bi bu demee ne ko ah lii de kenn mënu koo boole koor moom du ren du déwén du kii fekk jàngoro ji mi ngi ci yow te jàngoro du lu yor comme yow koor wàcce na la del natt mu dem koor rek waaw kon na loolu lañ ci bàyyi xel tekkiwul ne ku xoor rek ku feebar ku ne rek ngaa war a natt mu du koor bàyyi xoor déedéet mooy koo xam ne dangaa yore jàngoro joo xam ne kenn mënu koo boole ko xorte duut luy wérati ñu mhm. kooku lañ ko may mhm. macha allah tontu bi leer na macha allah oustaz kii itam oustaz li muy laajte nee na koo xam ne jigéen boo xam ne danga nga wann lor te amoo jëkkër maanaam euh, nga wann lor te amoo jëkkër bi nga tollee ci ay vingt jours nga sentir ne da nga wann lor nga yàq biir bi maanaam daal xam naa ci tënk euh, ku yàq biir yan daan la ko ci lislaam di teg daan yi ko ci teg rek mooy bàkkaar bu rëy bu màgg donte boo demee ci boroom xam-xam yi ñaari xaaj am na ci xaaj boo xamee dañuy wax ne boo yàqee biir bi fekk bi nga koy yàq biir bi toll na ci ñi wal caa war roox mat na téeméeri fan ak ñaar fukk jëm kaw ndax foofu lañu ñu commencé wal roox muy ñett ñeen fukk yi ndax ñetti ñeen fukk yi ñeen fukk bu njëkk bi ci ëmb dafay nekk rek toqantal mën yu bu formé mm. beneen bi dafay nekk lumbu deret mm. beneen bi bu ñëwee dafay nekk Euh, forme maanaam euh, kii cër yoo xam ne organes yi day commencé nag di di mën a complété wu di taxaw mhm. ba nga xam ne loxo ngi tànka ngi boppa ngi nangam ak nangam mhm. foofa nag lañuy door a wole rooxu gi euh, yàlla boole kook dogal yam dogal ci liir bi muy wërsëgam nu mu war a dafay yaatoom day xat waaye jii moom ku guddam ku gàtt lay doon mhm. ku ñaawam ku rafet lay doon góor jigéen tabaarakallaahu yooyu yëpp bu fa lañ koy installé nag ala ku xaal nag e, boo demee ci boroom xam-xam dafa ci am ñaari xaaj boo xam ne ñoom nga yàq biir bi avant loola ak nga yàq ko après loola ñoo xam bépp benn atte ñeneen ñi ci xam ne na ñoom dañoo xoyofal dañuy wax ne boo yàqee biir gannaaw bi ñu walee roox mooy gannaaw téeméeri fan ak ñaar fukk moo gën a garaaw téeméeri ju ne yoon ndax boobu daanaka dañ lay atteel nga mel ni koo xam ne ku rey nit nga mm-hmm. bee nag buy moom nag nit ki nekkagut formé guñ ko waaye lu ci mën a xam daal na yëg ne yàq biir ci commencement yàq biir ci dariñar lépp bàkkaar bu rëy rëy la bàkkaar bu mag a mag a mag la euh, alquran tere na ko jàngaleem sayduna muhammad tere na ko mm. borom xam-xam yi ñu ci ëpp tamit dëppoo nañ ca commencement ba ak ca mujj ga yëpp ne ñoo ku ko def am nga bàkkaar bu rëy rëy rëy rëy boo xam ne yàlla rek moo la ko mën a jéggal mm-hmm. kon nag loolu ñu bàyyi ci xel te di ko daw mm-hmm. macha allah jërëjëf oustaz xam naa ne boo na sax ci am fit boo xam ne xamoo li mu war a doon wax dëgg yàlla nga koy yàqu moom mm-hmm. ëpp naa def kii itam oustaz dafay laajte nee na ba xam euh, tabaski euh, wala déedéet nee na ba xam est-ce que tabaski ku am jabar rek la war wala ku amul jabar tamit da ngaa war a tabaski waaw ñun tabaski xitaabul wat yi la xitaabul wat yi ci usul mooy jaamu yàlla goo xam ne yàlla da koy teg rek ci man-man mu ngi mel ni boo manee ak jaamu yàlla ga war na la mi ngi mel ni asaka asaka soo xasee am lu ma nisaab yow mi ko am wala ñu amal la ko moo xam masoor nga moo xam masoor aguloo rek sa alal jooju war nañ caa génnee asaka ja tabaski tamit chariatul islaam yi dafa ko teg gàcc ko ci ki ko man ku ko man ku ne mbaa ñi manal la ko góor nga jigéen nga am nga jëkkër am nga soxna am nga amagoo jëkkër amagoo soxna ab liir nga ñaari at nga xam ak juróom at ak nàngam a tabaski ja teg waral nañ ko ci yow war ak sunna loolu la boo demoon ba xam nag juróom fukki at mbaa nga xam téeméeri at mënoo ko tamit comme ni ma imaamu Malik waxee ci ni ma la ko waxe ci commencement mhm. bi su boobaa tamit wacc na la donte yaa ngeen ñenti ñenti soxna waye ñun nak leg leg su por suñ problème moy mhm. li ci gëna bari dañ koy tek ci mhm. suñu fi moy lo bari bari alal bo amul soxna do tobaski bo amone sax yow da nga ne naa jox sama yaay am ma jox sama papa te yow tobaski ta fek comme koy sa papa sa yaay comme ñu waruñ la yow mi ko am yow la war nga rendi ko nak ci sa papa ak sa yaay bu sa loxo gëte sa gannaaw nga mëna gëndal jëndal sa bopp donte amo jabar gëndal sa soxna jëndal kon jëndal kon sa sa sa yaay jëndal sa papa mu gën a baaxati su yooyu yëpp amul tey benn nga mën a am su foofu la su doole toole yow kon la war mais ñooy warul leen yow rendil te nga xéene leen ceeb ñoom ñaar ñoo ngi duggaale ci biir mhm. euh, donte nag amuloo amuloo soxna mhm. kon waaye ñun su suñu aada fii loo bëri bëri alal boo amul soxna doo tabaski ñaareel bi tamit loo néew néew doole boo xasee am soxna mm. mënoo ñàkk tabaski ak foo ko mën a lijjanti ji da nga dem di ko lijjanti ji yooyu yëpp nag xaada rek la waaye tabaski xitaabul watahi la mm. nekkut lu ñu teg ci aas bi ngay toll ak nangam dañ koo teg rek ci man soo mm. mënee rek tegu na ci yow boo mënul wàcc la mm-hmm. macha allah jërëjëf oustaz leer na ku ci topp oustaz muy laajte nee dafa jël tariixa bi waaye yàlla dafa mokkalagul jawaar bi ko <coughs> laajte ñàkk ko mokkal googu ñàkk ko mokkal jawartu ko war est ce que du yàq dara ci li nga xam ne mooy diini mi def ci tarixa bi yàqul dara ci tarixa bi sekur la su boobaa dañ lay wax na rek comme kër wi nga te amuloo te yaa ngeeg sekur bi montel sekur bi sekur bi mooy watee ko ñaar fukki salaatul fatiha rek comme mënoo jawartul kamal wala nga man ko te fekk yaa ngi dox te mënoo toog ndax nga ànd ak mbooloo wala wala yow kenn nek sax ta fofu nga tok fa dang koy ragal ndax lu ne man la fa fek hmm. wala sax place bi nga toog dafa xat ba lu mat juroom ñaari nit wala juroom ben xaju bi fa euh, wala place bi holo ak sobe mak yu mel non yoy yeb bu arrivé wala sax da nga war da nga nek ci waruwaay mokkal nga ko me da nga nek ci avion hmm. wala nga nek ci sa auto wala nga nek ci yenen ak yenen hmm. muy war way bu meuna don ta buy déplacer wu laa ko mën ko nek ci étage man nga ko jang waaye bo nek ci war way bo xamni meuna déplacer wu su boobaa kon nag da nga koy wattee ñaar fukki salaatul fatiha ñaar fukki salaatul fatiha yooyu nag secours la waaye nag original bi nga xam ne nag mooy mooy pëna pëna pëna kii bi kooku mooy fukki jawartu kamal ak ñaar mhm. waaye nag euh, secours mënta ñàkk moo tax ñu indi secours bi ci ku mokkalut indi secours bi ci ku am ngànta allah macha allah jërëjëf oustaz euh, leer na ku ci topp oustaz li muy laajte moom itam nee na yërëmte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ñaata soxnaam la ñoo ñoo génn àdduna ci kanamam mu jullee leen ak tamit ñaata soxna ñoo fi des tënju ko moom yonent bi sallallahu alayhi li mu soxnaam yi dañ cee wuutee ndax ñetti façon soxna la am am na ci soxnaam yi soxna yoo xam ne sonn na leen takk wéet ak ñoom takk na leen wéet ak ñoom ci yoo xam ne takk na leen sonn te wéet na ci yoo xam ne doon leen labat waaye sottiwut ñett yëpp boko calculer dana bari mat fanweer ak nangam waye lu ci mën xam yi nga xamé sonna na leena tak takk ak ñoom di ci xolamaa wu sira tan moy fukk ak ben mo nekk ci mbindam mag ñëpp suñ mami leer fukk ak ben bi lañ tan ne mom la am fukk ak yoyu nak euh ñaar rek la ci sul moy sayyidatuna Khadija ak zainabu ni mu ñi dakantale umul masakin kenn ka nag da koo jullee xadijatu bi muy génn àdduna julli nii wàcc gut moo tax da koo ñaanal rek dénk ko borom waaye foofu jullee wuñ ko ndax boobu jullee nii wàcc gutoon ndax moom bi muy génn àdduna mi ngi tombeeg yonent bi di toll toll toll ci dundam juróom fukki at yu manqué ay weer ndax bi ko yonent bi takk ci booba yonent bi ñaar fukki at ak juróom la amoon sayyidatuna Xadija am ñeent fukki at kon magee na ko fukki at ak juróom te jigéen gu la magee fukki juróom parce que mën na laa jur Euh, bi ko bi bi muy génn àdduna tombeek yonent bi am juróom fukki at ci dundam yu manqué ay weer sayyidatuna Khadija am juróom benn fukki at ak ñeent boo jëlee diine baatab diine boo ko siifuree euh, loolu la lay jox juróom benn fukk ak ñeent xat yooyu la sayyidatuna Khadija yóbbu àllaaxira waaye booba jullee niiw xewagutoon julleeg niiw promotion la boo xam ne yàlla moo ko jagleel xeetu yonent bi yam nañ sax xeere ñu jiitu woon sax boo demee ci borom xam-xam yi ne ñoo xamul woon julleeg niiw waaye nag mu jox ñu ko ñun ñu jangee ko suñ jëf yi lu ci waroon a damm waaye ñaareel bi mu jox ñu ko ñu yokkee ko suñ yiw yi xam nga loolu kon teraanga ju rëy la moo tax Sayyidatuna Xadija bi mu génnee àdduna julleewuñ ko dañ koo suturaa rek ñaanal ko yàlla yonent bi seede ko seede bu gàtt ne jigéen nañu nii joo xam ne bu bëccëg mosaan na jot muy jëkkër bu guddi jotee muy soxna yooyu nag xam nga bàyyiwul dara yàlla wanoon na ko luus maa xam ci aljana moom xadijatu avant muy génn àdduna ba muy dem yonent bi ne boo demee nuyul ma sa wujj bi mu ne ko yow man a denc di mosoo boolee kenn mu ne ko ah ah asiyatu sayyidatuna asiya mi firaaw na doon denc sama borom nee na bokk sama soxna yi ëllëg ci aljana boo demee nga nuyul ma si gi nag bi xadijatu génnee àdduna parce que ci même weer bi mm. ci la yonent bi takkandoor ñaari soxna loolu góor gu am góor góor gu fit góor gu am góor gu góor gu dëgër def na ko ñaari soxna nag yoo xam ne presque ci même weer la leen takk wenn weer muy am ci ñaari séet euh, sa kii ci la bokk mooy kii noonu mooy sawdatu mm. ak aïchatu dañoo jege ba borom xam-xam yi ba léegi ñu ngi werante ñoom ñaar sax ci jiitu mm. ñi ne daal la njëkk takk waaye sawdatu moo njëkk a si mm. noonu dañ koy di wax loolu waaye boo jëlee tamit ku mel ni xafsatu ak beneen soxnaam bu ñu tuddee bu ñoom ñaar tamit dafa leen takk ci même weer ba mu amee fanweeri weer yi njëkk am ci gàddaay ga ci la leen takkandoor ci même weer moo tax kon nag yéen ñi yore seen si njabar dëgg dëgg gaaw leen ngeen takk ay ñaareel te sax saa yoo la mayee soxna ñoo ko toppi woon bala ñoo ñibbi sax na sa xel nekkaat ci indiwaat keneen ndax jigéen ñi buñ fi xasee yàgg ba naagu Ah, am na foo xam ne boo fa xasee eh, yegg boo ñaareel gutoon dootoo mën a ñaareel de dootul yomb te nu mu gën a yàggee gën a jafe mm-hmm. nu mu gën a gaawee na gën a yomb mm-hmm. moo tax kon loolu nañ ci bàyyi xel mm-hmm. kon daal ci tënk fukki soxna ak benn la am yoo xam ne wéet na ñoom waaye ñaar ci jébbal seen borom mooy Sayyidatuna Khadija ak Seynabu umul masakin Seynabu moom moom yàggul ci moom ñaari weer rek la am ci yonent bi génn àdduna ndeysaan yàggul waaye dafa baaxoon lool ñaari weer yooyu ba muy ñëw di sëy si Zeynabu mm. rek la andi woon mm. waaye bu ñaari weer yi la muy dem mm. taalibe yëpp ak saxaaba yi ñoo ko mujj dàkkantalee ko umul masaakin nday miskin yi ngir ak tabeem ngir ak mën a joxe ñam ngir ak yaatoom mm-hmm. kon ndeke distance bu gàtt nit mën na ci liggéey liggéey bu yaatu siigu ba tey téere boo ubbi rek buñ ko tuddee ne umul masaakin ndax dafa bëri woon ay Zeynabu mm-hmm. kon juróom-ñeenti soxna ñoo ko ténji soxna yooya ummu salmata ñoo ko ténji ci la bokk soxna yooya xafsatu saydatuna xafsatu ñoo ko ténji ci la bokk soxna yooya saydatuna safiyatu ñe ko tengi ci la bokku soxna yooyu seynabu bintu xoyay ibnu Akhtab ñe ko tengi ci la bokku non nga koy limé ba mat juróom ñenti soxna yo xam ñoko ñoo ko tengi moom ñaar ci ben kon loolu mooy ki yonent bi wasallam ma sha allah jërëjëf oustaz leer na lool sha allah jàngat bu yaatu la itam waaye xanaa doole ci rek ne parfois nga gis nit tak jabar comme euh, ñu ne da nga téla tak jabar euh, kon téla tak jabar da yaqul goor dere euh, mag ñi dañ daan wax ne hmm. ñett kenn du ko teele ba réccu ko mooy teel a samp kër ndax dana waral bala ngaa euh, sonn rek yàlla may la ay doom te gis nga doom dëgg-dëgg mooy alal ndax loo ñàkk boo xamee doom ñàkkoo ko waaye loo ñàkk boo ñàkkee doom si nga koy door a ñàkk boo ñàkkoon alal yàlla mën na laa may doom sa doom yàlla jox leen alal buñ ko xamee am nga ko bari na fi ñoo xamé tay tey dund nañ ba génn mënu ñoo tabax néegam ñax bu baax sax mm-hmm. waye tay yalla jox na leen ay doom yo xamé tabax nañ fi ay étage kon ñu xamé nañ étage ki seen doom yi mm-hmm. gis na fi ñoo xamé timit amon nañ nek nañ fi sonu liggéey bay bëgg dé mënu ñu dem makka mm-hmm. waaye bañuy ñuy génn ak àdduna yàlla may leen doom yo xamé tay dem nañ makka ba yobul leen makka bari na fi ñoo xamé tay jang nañ alquran ba mënu ñu ko mokal yalla may na leen ay doom yu mokal alquran kon lo ñak bo amé doom ñakoko waaye nag boo ñàkkee doom ci nga koy door a ñàkk ndax lu sa doom am rek yàqu moom ndax yonentu bi naan al waladu min kasbi abihi mm-hmm. te na gis nga teel a takk soxna dana waral nga téla am jabot, téla am jabot googu mëna la may tamit nga téla noppalu waaye tey fi nekké di koral sa alal ji di dagale ba bëgg dé dem ba am ñeen fukki hat jëm kaw doori tak soxna dem ba alal ji ñew sa doomi nekk ay ay ay ay tutang. kèn kenn sampagul ci kër bu la yalla dimbalé bo bu la yalla dimbalé bo dé sa kër ka tass bo amul sens bo fe bu ñu amee nijaay yu doy waar mm-hmm. nijaay yaay ñew jël alal ji sa soxna yi timi nga takkon ay xalé lañ te yow da ngaa yéex a mm-hmm. nga dé timi ñeneen ñew tak leen mm-hmm. ñu jël sa photo wàññi ko fële su ko defee tamit sos euh, euh, manam wékk sen photo yi ya. su ko defe ya tabaxon kër ga ñew dekkal leen fa ta mëno ci dara nangul leen tay liñ man ci ñooñu ci seen takko yu mujj yi mënuñ ko won ci sen jëkkër mo njëkk moo tax dal téla a dugg néegu góor ak téla a dem dara ak téla a soxna ñet yi mag ñi ne nañ kenn duko ko def diko ko réccu ci gëna gaaw rek mo mu gëna baxati waye waaye nekk fi Nan man xalé la mm-hmm. ah, ba légui sax maa ngi ni takkaguma soxna fekk déedéet nga tardé rek mm-hmm. maa man nga waron nga takku bu yàgg ndax gis nga yonantu ba ngi ni ñaar fukki at ak juróom mm-hmm. te xamul baayam génn na aduna gisu xamu ko sax ñaari wér la am rek eh, ci biiru yaayam ju sel ja bayam genn aduna mo am juroom benn at yaayam génn àdduna waaye terewut ñaar fukki at ak ko amé mu kër sayyidou cheikh cheikhna na tidiane ngi ni mom mom mo gëna gaawa takku soxna mom ñepp mom mom fukki at juróom benn eh, ci la am presque bayam genn aduna atam ak juróom ñaar ci la tak soxna eh, ne sax ñeneen fukki atam ak juróom ben ci la tak soxna fukki atam ak juróom bayam genn aduna ndax bayam bu moko mayon soxna sax muy Seydi Muhammad am nañu japp sax ne bayam mi ngi genn aduna ci fukki atam ak juróom ñu ne kon mom bimu amé fukki atam ñent ci la tak soxna fukki atam ak juróomam bayam genn aduna sey ba bayam genn aduna nak ci la soxna sax mm-hmm. do dem laxasi ba pare door a takkaan ñaari soxna muy say mabrukatu ak mubarakatu ñoo ko meññal doomam yu tedd yi tey nga xam ne ñoo meññi sura faaw yi fi yi fi nekk tey waaye gis nga doomam ya tamit mm. ñaari doomam yi mu amoon muhammadul uh, kabir ak muhammadul habib mm. kii fukki at ak ñeent la am mu may ko soxna mm. kenn ki fukki at ak juróom benn jëm juróom ñaar ba juróom ñett la am mu dencal ko soxna kon nag teel a takk soxna dana dimbale nit ki teel a fegu mm-hmm. teel a fegu nag dina la dimbale fa gaa yi yegg nga mën faa ndax fii ku fi yàqu rek jigéen a la yàq te jigéen ku ci xas yàq kenn mënatu laa defaraat ci kaw suuf kon jar na bàyyi xel mm-hmm. macha allah jërëjëf oustaz njàngat mu yaatu la man mën naa cee jànge ak ñu may seetaan te amaguñu soxna mën nañ cee jànge ndax kon xam ne teel a takk jabar yàqul dara parfois nga dégg yor naa mag bu takkagul wax dëgg yàlla. man xale laa tardé bu mag tardé bàyyi ko rek nga kii ndax bu fekkee dafa kërëwe. waaw bu fekkee ne dafa kërëwe nga nga koy doublé rek. su fekkee tamit moteur-am baa baaxut. ndax mënta dawul baax. nga nga nga nga nga kii ko rek. nga nga doublé ko rek yàqul dara. Mm. jërëjëf Oustaz jërëjëf leer na Oustaz ku ci topp Oustaz li muy laajte nee na ma nga ca bitim réew yàlla dogal nag bi mu fa duggee xawoon naa metti ci moom benn tubaab jël ko dal di koy fat mu nekk ci këram mu koy liggéeyal mu koy fay vas ak fin de mois waaye nag kër gi dafa xaw a bëri lool xaj xaj a fa nekk rek dañ leen di toppatoo sang ak eh, jox leen lekk comme ñuy jox nit ñi waaye daal chaque jour tubaab bi day bëgg muy foo xaj yooyu te mu dégg na xaj bu laalee sa yére il faut nga fóot ko ak juróom-ñaari ndox muy laajte ba xam laal boobu xaj yi di laal yére mi nan la war a comporter ak julleem ak yére yi xaj yi di laal daal. waaw charia may na ko mu liggéeyal. tubaab bi ci liggéey bu lislaam nangu waaye ba mu ko liggéeyal ci lislaam nangu muy liggéey ci xaj yaa di sangaka womataka yooya bu mu ca liggéey mm-hmm. lu jëm ci wàllu alcool bu mu mën a doon bu mu ca liggéey mm-hmm. amaa nag bu liggéeyee liggéey bu xuute yooya mm-hmm. xaj bi ñëw laal ko laal la laal ak xaj bi mënta yàq dara ndax fukkaaw yi dañuy wax ne kullu xayin rek taahirun lépp luy dund rek laab na euh, lépp luy dund rek laab na xataa yuutam ya ñandaxitam ya ba ci xaj yeeg mbaam yeeg yooyu waaye nag lañ la laale la la ñuy seet lañ la laale la su fekkee dafa taq sobe ba pare laale la la ko kon dootul jëmmam ji waaye lépp lu bokk ci xaj bi moom bu la laalee waaye xam nga laal ak laale duñ benn waaye nag bu la laalalee loo xam ne nag moom dafa nekk sobe mm. ci loolu lay nekk sobe te maanaam xaj bi laal sa yére yi du tax nga koy euh, dem di raxas yi euh, yére bi di ko fóot juróom kii loolu yonent bi ci bool la ko jàngale mm. suñ bool yi ñuy jëfandikoo bu ci xaj bi dugalee gémmiñam mm. mën nañ koo raxas juróom ñaari yoon euh, loolu nag bi médecine avancée sax lañ ko door a xam ne yonent bi moo raw science mu jigi la science trouvé ne xaj yi dañu am ay ay ay ay ay microbe bu bon ci seen gémmañ yi nag ci la nekk seen gémmañ yooyu tamit microbe boobu balaa mën balañ ko mën a bàyyi ci ci bool bi mooy mu def ndox ñu jël ko ci xëpp ko buñ ko dugalee seen gémmañ ji nii rek ba mu xëp ba xëpp ko ci noonu rek dañ cay bàyyi ay mel ni ay sax yu bon yu ndaw yoo xam ne microbe lay doon la ko mën a dindi rek mooy ñu raxas bool booba juróom-ñaari yoon buñ ko raxasee tuur raxasaat tuur raxasaat tuur man juróom-ñaari yoon microbe yi ca nekkoon yëpp dafay mujj dee waaye nag waxul bu laalee sa yaram sa sa yére bi loolu la mun munu caa bàyyi benn microbe dañ tax ñu koy fóot juróom-ñaari yoon mm-hmm. mais ci ndab lañ wax bu nekk bu dul ci ndab jëru ko loolu lañ macha allah jërëjëf oustaz leer na euh, oustaz ku ci topp li muy laaj moom itam Euh, xar moo xam ne dañu ko rey fekk doom ci biir bi bi ñu ko feesee fekk doom ci biir fekk ay doom ci biir bi est-ce que ndawal googu dina dagan bu doom ya matee daal sax kawar ba mat ci jëmm ji lépp mën nañ ko boole walla ci yàpp rek mu gën a bari dana arrangé siis siisee su fekkee nag ma saxagut kawar ba mat mën nañ koo génnee euh, teqali ko yaay ji bañ koo lekk loolu la ci borom xam-xam yi wax saa yoo rendee yaay rendi gi nga rendi yaay ji ci ngay rendi waale doom ji du jar ngay rendi doom ji sax rendi gi ñu rendi yaay ji rek rogaat na ca fekk nga bind ba ñu boole ko ci togg gi su fekkee bind ba matul nag moom yaay ji rek la ñuy a lekk bàyyi doom bi na Oustaz jërëjëf xam naa ci laaj nga xam ne ñoo yónnee laaj nga leen jëlee jamono ci laaj yu ñuy toll mooy yi nga ñu ngi ko jotoon ci koor gi maanaam comme si nga xam ne ñu ngi doog a yónnee seen laaj kon nañ jàpp ne lu mu yàgg-yàgg rek dinañ ci ñëw laaj yu ñoo bari loolu la kii nee na dafa doon defar bisaab ci jamonoy koor gi fekk booba dog des na 3 minutes maanaam ñetti minutes bi muy defar bisaab nag bisaab bi laal ci loxoom mu mar ko fàtte ne dogagul bi mu ko maree nag muy laajte ba xam ndax mar boobu mar bisaab bi day fay fan boobu nga xam ne moom la woor comme jotagul rek jotagul jege yi dara du ko dara comme jotagul daal jant bi soxagul ku ca dog ku nekk boo ko tayee da nga fay fan ba kafaara ko da nga fay fan ba ba pare xoor ñaari weer bi toftaloo mm. wala nga fay fan ba ba pare leexal juróom benn fukki miskin wala nga fay fan ba ba pare goreel kuñ moom ci niñ ko daan waxee su fekkee nag tayoo ko da nga fay fan ba moom kenn kese loolu mooy mazhab bu Malik mais boo demee ci yeneen mazahib yu mel ni wax ne yàllaa la ko def loo doo da ngay continuer koor ga moom nag mais Malik d'accord ci dafa ne da ngay continuer koor ba pare fay fan ba macha allah jërëjëf oustaz ci leeral kii itam li muy laaj oustaz nee dafa nekkoon ak soxnaam yàlla dogal ñu am jafe-jafe tàggoo biñ tàggooyee nag laata ñuy tàggoo amoon na ñaari doom muy góor ak jigéen biñ tàggoo ndaw si yóbbaale doom ci jigéen ji moom mu téye ku góor ki waaye nag muy laajte ba ndaw si moo ko ñaanoon baat muy laajte ba xam ndaw si nga xam ne dafa ñaan baat jëkkëram suñu tàggoo ndax amul dara lu koy war moom jëkkër ji luy jógee ci moom dem ci ndaw si wala luy jógee ci ndaw si jëw ci jëkkër ji moom ci chariatul islaamiya boo teqalikoog sa soxna doom yu jigéen ñi seen yaay lañ koy bàyyee moo leen ni yor waaye yaa leen ni moo leen ni yore waaye yaa leen ni yor seen yaay moo leen ni yore ci wàllu seen lekk seen naan lu koy toppatoo seen yére waaye yow bàyyi na yaay yor yaay yor mooy yaay jënd yére ya yaay fay njàng ma yaay tànn tamit lañu ñu war a jàng doom yu góor yi tamit yaa leen seen seen yaay moo leen ni yore waaye yow yaa leen ni yor ci bu ci imaam Abu Hanifa moo ci gën a yombale feeg ba ñuy mën a tollee ci jàng suñu waree toll ci jàng nag yow yaay tànn la ñuy jàng nga door a dem jëli booy dugal internat dugal internat booy dugal école dugal école buy ci Malick nag ñu góor ña yaa leen ni yor ma ma yaa leen ni yore ci seen dépense waaye nag soxna yi moo leen ni garde téye leen ba ba ñuy mësooree Malick foofa diggante bi moo gën a sori moo tax Abu Hanifa la wax ñu góor yi bu ñu xamee juróom-ñaari xat nañ ko doon seen baay moom mu seet la ñuy jàng buñ ci Malick nag doom yu góor yi seen yaay moo leen ni yore waaye yow yaa leen ni yor su ko defee fekk ba ñuy mësooree ñu jigéen ña seen yaay moo leen di yore yow nga yor leen fekk ba ñu mat a amee jëkkër ba ñu amee jëkkër nag ñu door leen a bàyyee seen jëkkër yi mhm. su boobaa nag yéen su fekkee ne yow teqalikoo ngeen demal nga jox ko yaay ja mhm. ñu seet nag lu ngeen war a yoonal weer wu dee loo ko war a jox mu mën koo def ci dépense wu xale yi ba dee ba toll ci jàng nag muy góor ga muy jigéen ga la ñuy jàng yaa koy tànn fu ñuy jàngee tamit yow yaa koy tànn mhm. parce que doom ba tey yaa yor seen kilifteer oustaz kii itam dafay laajte non dafa newoon jumaa bi mu demee juma di julli nag euh, yàlla dogal mu tolli ci biir juma bi mu tollee tamit euh, xam naa ni jugul génn nee na mu na naa ànd ci julli gi rek su ma génnee ba dem kër ga ma jàpp bantuwaat julli muy laajte ba xam ndax loolu mu defee amul dara lu ko ci lislaam di topp ci tojlee ba ñu génn jumaa ji li ko lislaam sant rek mooy ba mu tojlee rek dafa waroon a suturaal boppam téye bakkanam mel ni ku bor yi génn nànk bu demee jàppiwaat bu ñëwee fekk julli gi jeexagut mu kàbbaar lam njëkkoon a am dañ koy annulé su ko defee léegi nag bu ci amaatee benn rakkax bu gaa yi sëlmalee mu fay benn rakkax ci jumaa ja bu ñëwee fekk na gaa yi julli nañ jeex na te moom sonnoon naa am benn rakkaa rakkax annulé nañ ko bu paree moom dafa julli tisbaar rek xam ne jumaa mënta wéree ci kenn nit mënta wéree ci ñaari nit fokk mbooloo ñoo koy mën a def gën caa néew fukki nit ak ñaar ak ilimaan moo tax kon loolu la ko lislaam santoon moom nag bu continuer nag julli gi jeex na ba julli tag toj la bu yàgg nekk ca julli ga rek nekk nekkewul fa dara euh, dafay nekk rek kenn du ko ca konteel dara di bu pare nag mhm. euh, bu mu dem jàppee xat bu jàppee ba pare dem julli gi tu subaat mhm. waaye la ko waroon rek mooy mu génn mhm. ñu jàpp bakkanam mel ni ku bori dem defaru ji bu fekkee julli ga jeexagut bu ñëwee mu sosaat ko ca commencement ba bu fekkee julli gi jeex bu ñëwee mu julli tu loolu mooy àtte macha allah leer na ku ci topp tamit soos li muy laajte nee na bu fekkee jigéen dafa yor mbërëg yàlla dogal mbërëg bi dagg bi mu daggee nag ci waxtu mu daggee mu waroon a jàpp dem julli ji waaye ndox amut fa mu sangoo ngir mën a amal li nga xam ne moom moo di julli su boobaa est-ce que dina mën a tiim wala lan la war a def. charia dafa nekkoon ko na tiim jéem ak aj sobe ci nekk ci moom bu ko defee léegi bu waxtu wa jotee mu julli ko ndax dab waxtu moo gën a foor ñu ne fuuf dab laab. tax mhm. kon bu sa reegal daggee wala sa deretu gësin da waroon a sangu. Mhm. sangum mom boo koy def bo yéene jojo nga yéene sangum na dana halin japp la hmm. bo bo boo laalaatu sa kanam da yow mi góor hmm. wala yow jigen nga jël sa loxo duggal ko ci bir hmm. sa hawra bo pare nak man nga dem nga julli ci directement so amul ndox mo sangoo nak da ngay tim nga jema ak aj mu mag mi nek ci yaw su ko defé meuna a taxawal waxtu nga julli ko lolu ko sharia sant jërëjëf oustaz ki itam na dafa doon julli yalla dogal muy jité kenn ñom ñaar la woon muy jité kenn bi muy julli nak ñu démé bu wara war a bu ndaw traversé ko ci kanam mu xacc ko laata mu koy xati nak ki mu doon jité mom njëkku ko yegg suuf dal di sëpp jëm biñ paré julli gi nak mu ko da ngay bamtuwaat sa julli ndax ma doon lay jité do waro ma jëk muy laacc ba xam est ce que kooku julleem dina baax. dana baax mom moo wax ko loolu dafa joom rek jëk sa iliman taxul sa julli gi yàqu. dañuy wax ni iliman boko ko sujjo ta fekk yow ya ko tay wala nga ñëk ko siggi def nga lu haram su fekke da nga sujoot ak mom ak ndor wala nga siggee ak mom ndor def nga luñ sig yoyu lañ ci wax ñaar rek lañ wax ne boku ñëkke def sa iliman ba nga def ko ndor ak mom sa julli ga yàqu na mooy kabaaru ak selmal waaye loolu kabaaru armal du selmal ya ca dess yëpp boo ko gito sa iliman def nga lu haram bu gën ca def nga luñ sig waye kon nak ñëk ko sujoot yoyu ci la wax deug yalla dara néew ci rawatina nag lii ba nga xam man na jàpp naa ne sax bu ci am benn bàkkaar ndax jàpp na ne ilimaan gi sujjóot na ndax ilimaan gi li ko teree sujjóot yëpp mooy xale bi mu doon euh, kon bu foofa sax ba ñu wax naan boo ko njëkkee ji ci sujjóot da ngay am bàkkaar man jàpp naa ne foofa sax moom bàkkaar bu ko fa fekk ndax daruriyatu bi muy xale bi mu doon toxal moo ko yóbboole ba mu foog ne sujjóot na loolu yàlla ku baax la am na ci yoo xam ne boo ko xamul defoo ko moo tayoo ko du la ci togg dara waaye ilimaan gi ne ko si liggéey yàqu na moom moo juum macha allah jërëjëf oustaz kii itam oustaz dafay laajte nee na dafa dégg ñu ne julli du wàcc jullit bi tànk génnul àdduna muy laajte ba xam bu fekkee danga nga feebar ba feebar bi toll foo xam ne amatul dara loo mënal sa bopp ci cër ak euh, maanaam cër yu yëngatu dara lépp looy def rek dañ la koy defal mu ne est-ce que boobaa julli dina la wàcc wala ba tey jii julleeng la war julleeng la war feeg yaa ngi ànd ak sa xel mi sa xel mi daal feeg mi ngi ànd yow julleexal ni nga manee rek kese man ngaa jullee tey bante mënoo yëngal benn cër jullil sa xel mi ne man de kabar naa xarmal jàng naa fatiha jàng naa saar rukkoo naa sujjóot naa taaya naa sëlmal naa loolu lépp sa xel mi ngay teewal mu mel ni image booy taf sa kanam fekk yooyu yëpp mënoo ca dara du wax ja du jëf ja waaye su boobaa da ngay jullee xel waaye nag lu sa yaram yu wér wér wér boo àndut ak xel yàlla teggi na la julli mm-hmm. waaye lu sa yaram yu wére di wére di bu àndee xel yaa nga fa julleexal ci ni nga mënee rek yàlla ku bëri yërmande la su boobaa mu nangulee la ko ci nim mu toll moom macha allah mm-hmm. jërëjëf oustaz kii itam dafay laajte oustaz nee na bu fekkee jële ko tarixa bi eh, yàlla dogal kenn joxagul la wér na waaye nag yaa ngi jàng yaa ngi faral di jàng jawaratul kamal waa ak tamit di faral di dem ci adara ak yooyu est-ce que am na benn danger bu ci loolu ci koo xam ne jëlagoo wér tamit di jàngu yooyu dem adra yooyu. waaw benn danse nekku ci jawharatul kamal julli gu ñu julli si yonent bi la ñëpp ko bokk. salaatul fatih julli gu ñu julli si yonent bi la ñëpp ko bokk. Cheikh na Ahmed Tidiane mu màgg mi fi la ko fekk. ndax ñu ngi ko njëkk a wàccee ci euh, waliyu yàlla bala imaamul bikir yu saaba yi sax ku mel ni na Ali xamoon na salaatul fatih di ko jëfandikoo. kon yooyu iya. ap nga diko ko ta don dan nan naan tidiane yep dara nekku ci bu ko defee te yalla dundal la yool bu rëy rëy jëlagoo wirdo wi timit nit ñi di dajee tuddu yalla nga ne man dama ko bëgg dem di ko nga dañ la dañ la fay ndax hadith bi yaron tabi sallallahu alaihi wasallam don wax ne euh yalla amna ay malaaka yo xamne dañuy triste di wër buñ démé dañu dañuy rendre compte yalla yàlla xam li mé da leen di laaj ngir saxal tontu lu ngeen fekk sama jaam yoy ya, def ñu ne fekk nañ ko ñu lay tuddu de lu ngeen leen bay ñu ne leen fekk ñu leen tuddu de mu ne seeri leen ma ne ñoom ñëpp jéggal naa leen ñu ne ko yow yàlla xam na koo xam ne dafa ñëwoon am soxla ci waa ji de mën naa am sax su ma ko mën a mën a misaal dama naa am da ko am lum lum lu mu ko waroon a wax moom nag mu ñëw toogaale foofa doonte tuddul yàlla sax yàlla ne seedeel leen kooka tamit boole naa ko ci ndax ulaayika qawmu laa yashqi jalisuhum kon nag yow nag boo ñëwee far toogandoor ak ñoom la ñuy wax nga di ko wax su boobaa tamit yàlla jéggal la say bàkkaar fay la xiiwu rëy rëy rëy rëy loolu tamit entraînement bu mag la dana waral boo ci demee ba taamu ko bis boo jënee mbir bi dana yomb ci yow lool. Mm-hmm. loolu dara nekk ci baax na mbir bu rëy la. Mm-hmm. jërëjëf Oustaz macha allah leer na Oustaz kii itam dafay laaj xam naa ma nga ca bitim réew nee na ñoom ñu nekk bitim réew Modou Bodi parfois dañuy lijjantil seeni i doomu rakk yi nekk fii Sénégal këyit wala seen i doom mag yi nekk fii këyit su leen di lijjantil këyit nag foofu ca bitim réew dañuy présenté wu comme si ñoo jur xale bi ndax dafa am yeneen euh, koppar yoo xam ne dinañ ko ci gagné. muy laajte ba xam ndax xaalis boobu ngay gañe te da présenté wu ne maa jur xale bi fekk sa doomu mag la wala sa doomu rek est-ce que xaalis boobu dina lew waaw lislaam moom dafa dul dimbale nit ki ak di ko ubbil benn bunt bu muy fenee lépp lu jëm ci loo xam ne wàllu fen la rek yàlla da koy tere ab jullit mu di ko def waaye léeg-léeg nit ki mën naa waxee noo xam ne yow mi koy dégg dangay ngay dafay fen fekk la muy wax dëgg la ndax nit ki su fekkee ki ngay lijjantil Euh, sa mbokk la mi ngi melni sen baye bàyyee bokk donc du juro ko man nga xone sama domla, la ndax sa domi mak sa dom la sa domi mbokk sa dom la sa domi rak sa dom la loolu lepp lu yaatu la te suñu aada ji da ngay bari koy wax ne ko sama dom fekk juro ko sax manam comme man nga ko jur rek man nga taxaw ne man sama sama sama sama sama dom la comme ni sayyiduna Ibrahim euh, bi mu ak soxnam sa Euh, ndeysaanam ñu ne Haajara di jéggi benn frontière fekk buur ba fa ne dafa ne moom kenn dong moo xëyoo am soxna su rafet soxna su rafet su ngeen gis andil leen ma ko mu jël soxnaam dugal ko ci biir gaal gi euh, ñu daaj ko ci noonu ñu laaj ko ne ko lu nekk fii mu ne samay bagage ñoo fa nekk bagage na waa mu ne ah ñu ne ko mu ne man kat li may wax kan du dëgg bagage laa wax di waaye ndeke jigéen ñi ay bagage lañ maanaam alquran yonent bi wax na ko addunya mataaxun wa xayru mataaxiha azawjatu saaliha adduna lépp ay bagage rek la mu ne bagage bi ci gën nag mooy nga xam ci soxna su baax ci nga déggee ne kon ndeke soxna yi bagage lañ boo ci xenu xenu ci bagage boo xattan ku ci xenu bagage boo xattanu rek andi la problème waaye gis nga loolu buntu tawriye lañ koy waxee tawriye ci balaa balaaka mooy benn baat bu am ñaari maanaa yow maanaa mu jege ak maanaa mu sori yow nag boo jàppee ne maanaam mu jege ma laa doon déglu waa ji indi maanaam mu sori ma rek nga ne dafay fen te fekk li wax noonu dëgg la mm-hmm. fii Sénégal koo mat jur bu la neex bu la neex nga ko sama doom la mm-hmm. yaa ko dugal ci cadre ne mën naa koo jur ndax mm-hmm. bàyyee maguma wala même bu ma bàyyee magee kii mën naa koo jur kon def naa ko muy sama doom ak yeneen ak yeneen ak yeneen koo xam ne tamit euh, baayam sa mbokk la ak nu ngeen mën a bokkee ci côté yu bëri man ngaa wax ne sa doom la euh, ak ak côté yooya côté boobu nag boo ci jaaree dimbali ci nit ki présente tubaab bi ne ko sama doom la jaaree ko ci buntu tawriye booba mhm. euh, dara nekku ci lu lu baax la te dimbali ko nga dimbali ko tamit yàlla dana ca dana la ca fay yiw rëy te loolu tamit lam mën a jur ci aw yiw kooka dem manal boppam am kayit yaatu di liggéey téeméer nit di dund ci gannaawam xiw yi ci nekk kenn xamul ni mu te jamono jii tamit li li nga jàpp di ko càmbane dafa xaraam Seexu Tidiane waxoon na ko da ngeen toll jamono joo xam ne li xaraam lépp ku ko bëgg a bàyyi bi ray la mm-hmm. foofu nag lañ toll daanaka daanañ toll jamonoy médd mm-hmm. li dafa bëri daanaka dafa bëri ci lépp mm-hmm. moo tax am na ci yenn yoo xam ne boo demee ba di ko gëstu rek bëgg caa xatal sa bopp rek coono bu rëy moo la cay ñëwal loolu di kon yàlla tënkul ñu dafa ñëw tink ci lu bëri nañ bañ a nekk fi sonal suñu bopp ci yenn tënk yoo xam ne coono si Ahmed mhm. jërëjëf Oustaz na Oustaz kii itam dafay laajte nee na ci laaju koor gi la nee na moom ci jamonoy koor gi euh, jumaa ji mi naafila dañuy naafila isib wala boog nisif léegi nag parfois moom fii waa ji di naafila ci isib wala nisif du ko mokkal la muy def mooy moom day jël ci saari benn boo xam ne mokkal na ko di ko bamtoo ko muy laajte ba xam est-ce loolu mooy defee baax na waaye dañoo bëgg su fekkee seen iliman jooju di leen jiite day jàng ca kaw naafila yi ya, dañoo bëggoon mu cellantal rek déglu ko loolu la alquran daa quri alquran fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun déglu ko nga koy déglu ci cellantal donte xamoo baat ya la muy firi mais baat ya ma ngi lay neex rek nga di ko teewlu dañ la ciy bindal yi wu rëy waaye buy jàng moom ca kaw yow ngay jàng jaxasoo mën naa nekk waaye bu fekkoon ne jàngi yeelu la yow moom mën ngaa jàng nànk te fekk kenn du la dégg moom tamit la mu jàng kenn déggul ko waaye imaam Maalik dafa ne daal bu la sa ilimaan di jiite te muy jàngi biral ca kaw da war a noppi su fekkee jàngi yeelu la mën ngaa jàng sa faatiha ak sa saar waaye boo doon jàng faatiha jeexalaguloo mu rukkoo tamit bàyyil sa li nga doon jàng lépp da nga dem rukkoo ànd ak moom ndax innama ju'ila al imaamu li yutamma bihi la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam xam naa sax bu imaam bi di jàng yalla dafa dogal mom taxaway bi day yag baña gemendu wala baña ki motax mom muy jël ben sar diko jang non na na na na rek xamne ne ci julli ga ta xamne tamit julli li muy reey reey yonentu bi xam nga li ci jambi xam lam xellu si julli ga rek mm. waye lu julli gi yag yag yag li ci sat xel mi absenté mm. dem fi tëngéej dem fi caaroy dem fi fu nekk mm. loolu kenn du la ko bindal ca payooru julli ga mm. waaye li nga lu ci julli gi rek mm-hmm. li julli gi di bari bari loolu rek lañ la cay bindal ñu mel ni rek numéro bi tey am na foo xam ne tey gars yi boo bu affaire bi normal da nga gis numéro yi di battare mm-hmm. waaye bu demee ba am foo xam ne rek dafa gis numéro ya taxaw ñun ñu nekk Europe neex nañ koo jàngal ci lu bari ak ñey basket ak mm-hmm. ñey football ak ca temps booba ak yooyu yëpp dañ am ci yoo xam ne mi ngi ci biir temps bi mais fekk na temps mort la kon te bëri na temps loo xam ne mi ngi ci temps wu biir julli gi waaye fekk temps mort la kenn du la ko konteel mhm. li sa xel mi absenté ci julli gi yëpp mhm. bo bo bokku bokkut la la bokk rek ci temps bi ñu la bindal ci julli gi mooy li sa xel mi nekk ci biir julli gi dañ mhm. ci bàyyi xel bu baax a baax a baax macha allah euh, kii itam sax dafay laajte nee na dafa nekk ci benn place di liggéey ak benn waay hmm. léegi nag yàlla dogal bu seen place amul yenn bagage yi njaatigéem da koy yemal na ko demal place diw boo demee nga jënd fa bagage sàngam woo naa ko exemple mu ngi koy jaayee téeméer ak ñeent fukk wala mu ngi koy jaayee téeméer ak juróom fukk wax naa ko ba ñu waxante bu juboo xaalis baa ngi nii dama fay moom nag su demee dina fexee waxtaan ak waa ji ba téeméer ak fukk yooyu ko ci fukki dërëm wala cent yooyu mu ko ci may nag du ko indi ci njaatig bi da koy dagg muy laajte ba xam ndax loolu sàcc lay tekki waaw ah, déedéet bu sàcc xanaa moom dafa njoogaane rek wax dëgg yàlla dafa njoogaane rek comme wax dëgg yàlla patron bi wax naa moom ba ne ko dama laa fayloo ji rek waaye man wax naa ak ba mu pare ah moom mu war a dem fay rek jox ko bagage parce que moom jëlut mu dem nag ci biir jënd ak patron bi bëgg caa waxantewaat dëgg dëgg kooku moom dafa njoogaane rek ba xam daal bëgg na xaalis lool ba jéggi dayo xam naa dafa doxam boobu la bëgg waa ji fay ko ca dara ba mu neexal ko ca mënoon na ko rek nag ah man de maa ngi lay ñaan rek xam naa patron bi wax na ma mhm. ma amee dara nga dimbale ma ci rek loolu waaye daal dafa njoogaane rek waaye wax dëgg yàlla loolu moom xéemi lool jërëjëf oustaz Eh, fuddan nuy l'islam di gisee fuddan ndax dagan na yaa fuddan yi kay dagan na baax na lool eh, eh, ma mag ñi su fonkoon nañ ko te moom mënul protéger sa diggante njàpp li mënta protéger sa diggante kii bi mënta protéger tamit sa digganteeg Euh, sangum janama bi waaye liñ doon tere mooy émail nga xam ne dafay protéger ca wew yi ba boo sangoo du yegg mm. boo jàppee tamit du yegg te gis nga fuddan garab yi bokk nañ ci ñu ne garab yi nekk aljanna ci la bokk mm-hmm, euh, boo demee tamit xisaab diggante euh, sayyidatuna sayyidatuna Hawa mm-hmm. ak aadama ak diggante seen seen iblis foofa fuddën am na rôle bu mag bu mu ci sooyee boo xam ne feeñ na ca mm-hmm. tax na fuddan lu ama am solo la di sariya te terewul ko ci ñi di ko def macha allah jërëjëf Oustaz leer na kii itam Oustaz li muy laaj euh, nee na dafa nekkul ak soxnaam exemple mi ngi fii soxna sàng dëkk ba si bëccëgu weeru nag ci laaju koor gi ba tey euh, ci bëccëgu weeru koor nag day jokkoo soxna si jokkoo boobu nag day dem ba yëg ci boppam muy laajte ba xam ci bëccëgu weeru koor muy jokkoo ak soxnaam ba yëg boppam euh, fan la bi muy fay wala day kafaar waaw yëg boppam su fekkee mën ni yow moo génn mën ni mooy loo xam ne buy génn faw mu jañu yaram wi yëpp a koy yëg li ko yaram wi yëpp a yëg moo tax ñu ne sa yaram wi yëpp ngay raxas dafa wuteeg dem wanag booy dem wanag place bi nga xam ne foofu nga tuuree ndox wala nga tuur tuur dugub foofu rek a koy yëg moo tax ñu raxas loola place booba rek waaye mën yu buy génn ci sa yaram wi yëpp a koy moo tax ñu ne la comme yaram wi yëpp yëg na ko raxasal yaram wi yëpp mooy nga sang ko moo tax kon na su fekkee jokkoo gin jokkoo am ci bëccëgu weeru koor ci la dem ba mën yoom génn dana fay fan boobu boole ko kafaara xoor ñaari weer wala mu fay fan ba lexal juróom benn fukki miskin mbaa mu fay fan ba goreel kuñ moom su fekkee na mas yu moo génn donc ku mu ci ñaari yi dana mottali fan ba bu paree moom fan boobu rek lay fay bu fekkee mas yu la bu fekkee mas yu la mooy ndox mu rattax moo xam ne dafa ko yëg ci kanamam waaye dafa ndox mu jañu moo xam ne yaram yëpp a ko yëg su boobaa moom dana mottali fan ba fay benn fan waaye su fekkee mën niyu la dana mottali li fando bu pare mu fay ñaari weer loolu na yakana dara jaru ko ma sha allah jërëjëf sans leer na kii itam oustaz dafay laaj euh neena ci sangu farata est ce que man nga rot ndox mo xamne ne setna amul ben jafe-jafe nga duggal ko ci toilette bi bo yegge nga yene ne fasna yene sangu farata xapo ndox mi génn au lieu ngay def ben ben baxna borom xam-xam ni nangu nañ ko ci téré yi bo demee dañuy wax né innamal amalu bi niyaati yoonte bi bo yéné woon dama bëgg sangu janaba yéné na ko ñëw ci géej gi ni rek muur raxas sa cër yëpp ba mu set wecc fenn fu ne nga rombale ko ragg nga ko ba mu set ci sa lay sa kaw bopp ba ci suuf sagum janab bi moom wér na ne boo jëloon benn paan ndox ma couleur ba xet gaag caf nga dara soppeeku ci nga ne damaa yéene sangum janaba raxas sa yaram wi yëpp mu set sangum janaba ba wér na mm. waaye nag lu gën lu ne am na lu ko gën lu gën a baax la gën a baax mooy boo ñëwee nga raxas sa loxo yi ca biti ndox ma bul ñëw rek dugal ko yonentum ne nag xamuñ sa loxo yi fu fanaan te kon da ngay jël pot raxas sa loxo yi ci biti ndox ma mhm. ba mu mat ñetti yoon mhm. nga raxas sa kanam ba mu set wecc mhm. nga dooree sa jumbax ba ci say bët moom kanam ak gannaaw raxas ko ba mu set wecc nga door a njàpp njàppal benn benn bul naan bu ma sa loxo yi nga raxas ko nag nga koo raxasaat taxabut la mooy lu ñu yàlla sant tax mu ñu yàlla ba su fekkoon ne set rek la setoon na mais da nga koy raxasaat galax ndiku sorox ndiku daal di fiiru ndox ma sëlmu mu ko defee tamit raxas loxo ba ci coonc lii raxas bi nonu massa bop bi ko defé dem ak ñew gi koro koro nopp yi jëlaat ndox toyal ko ni jaarale waat ko ci bop bi pour yëgal ko ne ko ndox a ngi turu yi écarté woon ko ubbeeku waat nga door tank sa ndox mi sa ñaar ndox yi ba mu fess tap ko ci def ko ba muy ñetti yoon ba mu toy xet nga doora wacce nak ak Euh, nopp yi yóbbuwaale maanaam mbagg meeg xuru gannaaw yi yóbbuwaale faar yeeg poqataan bi yóbbuwaale tànk bi ba ci dajoor yi càmmooy bi tamit nga def noona bu paree na nga door a mottali ndox tànkam ndeyjoor bi ba mu set door a def tànkam càmmooy bi njàpp la mat ma mat sanguma mat njàpp la mat nga dem noona julli ndeem gannaaw bi nga jàppee njàppal benn benn sa xonk xonk loxo bii dénk lii li ci xonq ak yi yëpp mooy li xonq ci loxo yi rek laalul sa kanam directement mm-hmm. mën ngaa julli waaye su fekkee laal na ko na gannaaw bi ko njàppee njàppal benn benn dangay jàppaat rek mm-hmm. gannaaw bi sangu bi matee nga door a dem julli ci mm-hmm. waaye daal sangu mii moo nekk ci téere sunna yi moo gën a matale moo gën a baax moo gën a yàll moo gën a rafet waaye nag boo ñëwoon tuuroo ndox mi rek téye na ci sangum jana ba te cër yëpp raxas nga ko ba mu set wecc nga ànd ak ragg te yéene nga ko sangu mat na sëkk baax na ba tey da ngay rek dem julli ji. Mhm. macha allah jërëjëf oustaz leer na macha allah kii itam oustaz dafay laajte nee na da doon yónnee dépasse këram 15000 francs 25000 euh, la waroon yónnee yàlla dogal bi mu koy yónnee moo nekkoon ci euh, loxoom mu ngi xalaat fan laay jëlee sax 10 000 yi ma ko complété pour mu mat 25000. ci noonu nag mu jot euh, Orange Money dépôt maa ngi jégalu publicité la mu jot benn li nga xamante ni moom moo di muy 10 000 francs mu retiré 10 000 yooyu boole ko 15 000 yooyu yónnee ko dépasse bi mu demee ba jëmmi jamono mu jël 10 000 yooyu na saraxeel naa ko ki ma ko dugaloon ñu laajte boo xam ne est-ce que defee noonu la. Mm, nag du noonu ndax yéex na koo saraxe wax dëgg yàlla. Mm. ba mu gisee ñu yónnee ko 10 000 te mu xam ne moom mu ko. Mm. xamul fu mu jaar yoon wam jaaroon. ba xaalis ba dugg te bu fa jaaraatee rek dana mën a génnaat. loolu moom ak fu mën a jaaree rek gaa yi xam nañ pexe. mu xaalis bi daal ku ma ko yónnee man xaw ma ko dama bëgg fexe nga xam ko am na foo jaare ci gars yi ci borom numéro yi dañ mën la wax fi mu jaar ba dugg dañu mën a xam fi mu a hmm. yow nag boo demee gëstu ji yooyu yëpp mënta nekk mënoo koo xam def nga ci moyen boo mën a doon hmm. dafay mel ni taxaw taxawaayu ku for ku for for goo xam ne xamoo boromam hmm. nga jéebaane ko ba mu mat at sariya dafay wax ne nag su boobaa kon saraxeel ko boromam nga xéene ko yool ba waaye nag saraxoo ko ba pare ba sa aajo faju nga dooraan dama koy door a saraxe dëgg-dëgg loolu jaaduwul loolu rafetul na na tuub mu yàlla ci loolu nga xam ne def na ko macha allah ñu ngi déglu macha allah jërëjëf oustaz leer na kii itam dafay laaj ne nee na am naa mooy laaj bu mujj bi nee dafa dégg weeru koor boo ci yeete yàlla daf la ciy bindal tiyaaba ak li gën a xewal ji la jamono yeete yenn yeete yi ca tëgg ak ya ca xaaju est ce que yooyu yàlla dina ci bind yi tiyaaba déedéet nag dëgg-dëgg Euh, yàlla kenn du ko jaamoo ci fo te dëgg ak fecc moom yëfi fo rek la te yàlla nee na su ma bëggoon fo maa gën a placé wu ci am naa ñu ma foxal waaye fo mooma ñorut kon nag euh, boo bëggee di yeete ni koy gars yi defee ci jàkk yi daal rafet na lool te ñi bañ ko defee noo xam ne tamit yaa ngi yeetee mais yaa ngi lore loolu tamit am na ci yoo xam ne charia du ko bëgg ngay bàyyi ba yenn waxtu yi jot nga wax nga defee ko noo xam ne doo lor kenn Euh, nga bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax waaye tamit na yaa ngi yéex ci tëgg ko fecc tey jël ndënd mi topp nit ñi mbaa nga til bool bi yooyu tamit moom daganul bu baax a baax yooyu nañ ci nañ ci nañ nañ ci bàyyi xel yàlla kenn du ko jaamoo ci affaire yi caaxaan ak mm. affaire yi fo macha allah jërëjëf oustaz jërëjëf ñu mastawu la bu baax a baax mm. toogaay bi yàgg na waaye itam ak soone yi dëgg yàlla pour nit ñi jëriñu ñu ngi ci ci mastawu bu baax a baax xanaa nit ñi baaxoo di ko def rek tey moom xam naa dañuy ànd ak ñi nga xamante ni ñoo nekk fii la ci garage Bon Marché surtout horaires yi nga xam ne dañuy gunge nee nañu foofu waxtaanu fajar yu jotee rek dañu dugg ci diine ji TV rek branché suñu waxtaan surtout dimanche branché waxtaan wi daal di koy déglu moom la ñu wettalikoo ba rek ñu yegg bokk na ci Babacar Diaw ma nga ca air Kër Madiabel ak ñoom Baye Jim ca air Wack Ngouna ak Cheikh Gueye ak euh, ki nga xamante ni moom moo di Alaaji Ndiaye taximan la fii la nekk ak euh, Amet ñoom ñëpp ñu ngi ci oto yi waaye di wettalikoo diine ji fu ñu mën a nekk Ibou Ndiaye ñoom itam mu ngi wettalikoo diine ji TV ñoom moo ture ku lim juum ak alaaji fay ñoom ñëpp daal ci horaire yi ñu nekk di wettalikoo diine ji TV mm-hmm. ñu ngi jot seen i message ci ne fu waxtaanu fajar bi jeexee rek branché leen diine ji TV mm-hmm. di déglu laaj ak tontu ñu ciy gindeeku waaye itam clients yooyu yëpp di ci gindeeku moo tax tey ñoom lañu jël ñoom it wax dëgg yàlla gërëm leen sant leen ci ànd boobu nga xam ne la ñuy ànd ak ñun surtout suñu tooma Cheikh Gueye moom itam ndaw lu jom kon oustaz xam naa rek foofu la ñuy tàggatoo wa taggo gi de moy sante mbokk yu bax yi nga lim ñom ñepp mm. ci seen tour ci seen sante ak ci li ñuy yëngu yëpp maa ngi leen di sant te di leen gëreum mm. ndax ki jëlé sa wax ji ci waxtu yobbu ko ci wax mënatoo ko fay ta wax lu mu bari bari bu ko kenn dégluwut dootul tuddati wax mais waxtu rek lay doon mm-hmm. da ngay tax sa waa ne toll fi di waxtu rek kon ki jele sa wax ji jele ko ci wax yobbu jele ko ci waxtu yobbu ko ci wax moy ki la deglu kon ñooñu yalla nañu leen yalla fayal ma ngi ñaan yalla jox leen yiwu auto yi te musal leen ci hayu auto yi yalla man nako am nako sañ nako yalla nako yalla def ya ña ci nek di dawalan yalla nañ dem ba xam seen auto yi bop ya ña ci nek nek ay apprenté yalla nañ dem ba xam seen permis ya ña ci nek ay client kenn ku ci nek am foo jëm fa nga jëm timit yalla la nga fa yegg la la tax di dox timit ba tax nga ko fi dugg ci or weer bi loolu lépp yàlla na sotti li may tëjati mooy laaj bu mujj bi rek yeete yi ci suñu réew yi rek nga koy fekk waaye boo demee màkk amul kenn kuy yeete waxtu wañ war a nodd bu jotee rek ñu nodd bu ñu waree salaatu tamit rek ñu salaatu mm. waaye yëpp daanaka lu ñu rek mm. ci suñu ci suñu suñu aada mm. gis nga nit ki bu fekkee ne diineem ñor na ko dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dafa wara a bokk ci ñay xeete waaye warul bokk ci ña ñuy xee te fu mel nii kat ko fi ne woon am nga volu Amérique mm. kañ ngay dem quatre heures du matin mm. wallaahi doo nelaw ci guddi gi wala da nga rek leen noo xam ne da nga naan da nga def lu nekk bañ vol bi bàyyi la fi kon nag volab yàlla bii ti waxtoom yi xam ne ci lañ war a dugg ci koor gi dëgg-dëgg yooyu yëpp nañ ci ciy bàyyi xel waaye te léeg-léeg am na ci yenn xeete yoo xam ne sax waxuma tëgg mi mm. waxuma timit yenn yi mais yaa ngi loroñ yenn ñi am na si ñoo xam ne heure boobu la ñuy nelaw ñi ay malade foofu la ñuy récupéré nga nekk takk rajo yi indi ne waxin fa da nga xamante ni yaa ngi lor yeneen yeeg yooyu ah, te yooyu moom dëgg-dëgg yooyu ñu sos rek la nag duutoon luñ xam te tin sos googu tamit yaatuwut ci suñu réew yi rek koy fekk mm-hmm. Mm-hmm. waaye boo demee ci fu bëree bëri ci àdduna boo demee doo ko fekk mm-hmm. loola kon nag nañ ciy bàyyi xel ci yàlla kenn du ko toppee Eh, ci lor doomu aadama yi loolu amut fenn mm-hmm. noonu nañ ci bàyyi xel yal na yàlla defal ñu tawfiix defal ñu taysiir lu ci leer yàlla lu ci lëndëm gàtt xam-xam ak ñàkk fasaax la in mm-hmm. uridu ila al ma sataxtu mm-hmm. wa ma tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu la unni wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Oustaz Wade jërëjëf li nga xam ne yéen a ngi seetaan Bidew TV rendez-vous beneen dimanche incha allah rabbi ci